lakk gu métti métti moo am ci dëkk bi nga xam ne moo di ñalaxaar nekkee ci ginnaaw tuuba lu ëpp fukki kër ak ñaar fukki néeg ak juróom yoo xam ne lakk nañ ba jeex dund xaalis lépp doon dóom. lakk takk mett gi weesu na ko ndax li wétti nañ fi ñaar xam ne fukki néeg ak juróom lakk nañ fi li fi lakk ci ay nding nag ak matériel ak gerte ak dugub. mën mënatu taxaw di leen ko leeral. man sama mag moo lakkale matière bi tuuti laa lakkale nag bariwul ngooñ laa lakkale rek bariwul moom waa kii moom mooy sama mag maa topp ci moom waaw moom lim lakkale ma bëri na doomam moo lakkale xaalis bu bëri boobu noonu moom ngooñam daanaka bu ma toon na téeméer ñaar téeméeri saako waaye lépp lakk na lakk dund bi tamit lu ci bëri lakk néeg bi lakk waaw kër bari na fi yu nga xam ne lakkale nañ fi dugub boo xamante ne si mooy dund bi yëpp la war a dem si seen dund mboq basi gerte ak ñebbe yooyu yëpp làkkle nañ ba si jiw bi saab bi nga xamante ne si jigéen yi am na ñoo xam ne dencal nañ ko seen bopp. lakk gi nag mi ngi bàyyeekoo ci koo xam ne xelam neexul nekk ci dëkk bi. ah lakk gi lu ko sabab maanaam benn xale boo xam ne dafa eh, eh, xel mi dafa neexul ñun danoo xëy ñii danoo dem tuuba ñii ñun ay dóor katiwaar lañ damaa xëy dem ci tool yi bi ñuy ñëwaat fekk na booy bi affaire yi dikkal na ko mu taal affaire bi maanaam dafa maanaam dafa dafa doon dafa wérut daal. wa dafa wér di xel waaw day daanu rab day du day yor arme di daaxee te yooyu hmm. waaw yooyu yëpp da koy def booy bi day yël leen ko ba yóbbu ko bàyyam bu ndaw ko yóbbu waaw bàyyam ma ko yóbbu waaw jëf ji nag bi mu koy amal fekk na ci dëkk bi ñu bëree bëri néewuñ fii ñi génn nañ dem tool ñi daal di tukki. booba nag ay ñaan ak ñu bëri dañoo xëy tool kii dafa xëyoon dem Touba moog sama mag bi dafa xëyoon dem Touba léegi bi mu demee moog doomam ak gars yu bëri dem man mi damaa xëyoon ci àll bi mbay mee da doon tekki rek daanaka fe da seen tasanteeg affaire bi man ci àll balaa jógee bi may ñëw boobu fekk naa affaire bi dem. ñu nekk jamono bi ci situation bu métti métti di sàkku ndimbal ci mboolem kilifa yi rawatina xalifa général des Mourides noonee it lañ ko sàkkoo ci njiitu réew mi ak mbooleem koo xam ne mën na leen a jàppale. maanaam dëkk bi lakk na ba jeex takk ñun ñu ngi ciy sàkku ndimbal xalifa général di mourides sëñ Mountakha Mbacké ak président Macky Sall ak waa Touba ci kanam waaw moom daal foo waay ne taw yar sa ndimbal rek ñu ngi ci ñaan ndimbal sàkku ñëpp waaw ak laat Abdoulaye Ka maire Touba ak Moustapha Cissé Lo moom daal ñëpp rek. mboolem gouvernement bi daal ñëpp ku ci mën a sàkku ku ci mën a def ndimbal rek ñu ngi ñaan ñu ngi leen di ñu ngi leen daal. muy président daal la ak képp koo xam ne nii di ko la gën a xam général ak képp koo xam ne nii nga sa ndimbal te bëgg lu baax te di yéene dimbale euh, euh, jàmb lotu nga jël sa ndimbal. ak sa yéene jëmale ko Njalaxaar. lii nga xam ne nag moo xew ci dëkk bi nga xam ne moo di Njalaxaar métti na lool. ndax guddi tey jii ñi nga xam ne seeni néeg dafa lakk ci biti lañ nar a fanaan. waaw si biti lañu fanaan wax dëgg yàlla.